ay ca jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bi di Fekke TV ak Jëll bi TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy defee tey nag daanaan la ñu seet muy xale boo xam te ni xale Kër Massar bi la Boy Seye 2 gëj ci làmb lool tey mu am combat am ak Cheikh Super Diamono le 11 journée Assane Ndiaye dinaa leen journée boobu nag daa bari ay ndaanaan waaye rawatina ndaanaan bi nga xam ne moom la ñu seet si gëj a bëri lool Seye nuyu nañ la nañ la nuyoo bi bu baax di naan jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maa ngi sant suma sëriñ euh, sëriñ Khalil Mbacké caatu borom Daaru Muxti di ñaan yàlla saxal ko fi bu baax di nuyu waa Kër Massar yëpp di nuyu waa Daaru si sama dëkk di nuyu bu baax saal bu ma fekk nii muy saal Tumaani Samba Diop nekk fi di ko nuyu bu baax di ko siyaare di ñu jàppale nag Tumaani bu baax a baax. mais ñàng nga de préparation combat la wala. waaw mais man moom man est-ce que mus naa bu ma sañsee ba naaj defaru ba mool sax damay waaw man loolu si man la nekk ko tey nga jëm le 11 mars nga war a jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Cheikh Super jamono naam jàppoon nañ ko yow yaa blessé ñu jàppaat ko le 11 sax yaakaar naa ne de li ci des bareetul ay semaine la ñuy wax nan nga préparé wu ma de mais dañ ne boo see jëlee moo blessé man blessé wu ma de moom moo blessé moom Cheikh Super Diamono waaw moom moo blessé waaw moom Cheikh Super Diamono moom moo blessé waaw man blessé wu ma man dara jotu ma man lépp ngi baax tey ngeen jëm la Oz. waa di pare nañ pare nañ fépp ñu ñaan yàlla lafal ma cat. Mhm. na may ñaan yàlla la ma cat mhm. waa mais ci préparation bi. Boy 2 ñaata séance lay def préparation te adversaire bi nga mës am nag yaakaar na daan nga ay ndaanaan ndax ku bëreeg Fils de Balla rek ndaanaan la ci làmb waaye adversaire yi nga mës a am yëpp Cheikh Super jamono moo leen gën a capable. d'accord nga wala d'accord. waa loolu say wax la yow. parce que du ma la bañ say wax non man dégguma benn amateur wax ko nag. man si yow laa ko déggee duma la ko bañal nag waaw parce tamit xam am nga xam-xam si làmb macha allah waaw boo ko waxee rek peut-être am na foo ko teg quoi waaw. non non non dañu gis Boy Seye 2 gëj a bëri moom mu nekk ci ay dynamique de victoire ndax mu prouvé ci làmb moo tax nga ñeme koo jël am na wala am. mu prouvé si làmb làmb léegi kenn rawul kenn nañ la fay lu la jaral rek gis nga ne làmb ju déroulé léegi. Balla Gaye Boy Niang lan la fi def ba mu bëree moom ah. làmb la combat moo leen boole. Zarko Ada Fass lan la wa Zarko wax nee na xaalis et cetera làmb bu nekk ak li lay booleeg adversaire sama digganteeg Cheikh Super jamono nag làmb moo ñu boole dafa prouvé may ma ko sens làmb moo ñu boole quoi ñu war a bëre la onze di ñaan yàlla may ma ndam. mais gëj bëre bi amul lu muy pénaliser ci booy bëre man bëre man Covid bi rek te na ñoo xam ne ba ba léegi lañ gëj a bëre waaw man gëjuma bëre man ma déggee wax gëj a bëre ay ree la may def. mais amul muy pénaliser ci bës. lan mooy loolu damaa gëj a bëre ba may pénaliser maa ngi contact chaque jour. man démb rek bëre naa. démb rek bëre naa. Boy Seye de Super jamono arbitre suuf la ci biir géew. ma def lu ma war rek ma def lu ma war lu ma samay kër su digal ma def Boy Seye de fugg senes bi xeex bi est que dina ñëw. ah en a bàyyi xel seex. ça dépend rek man daal en tout cas pare naa maay waaj maay ñaan yàlla may ma ndam. lu ma sama Boy Seye de ci fi du ça dépend tey. waaw déggoo lu ma la làmb bu nekk ak lu mu laaj sama digganteeg Cheikh Super jamono lii la laaj lii la laaj maa ngi ñaan yàlla may ma si ndam magan làmb du ay wax sàmm la wax façon de communication bi ma doon bi ma doon communiquer si làmb bu fekkee moo may taxaw nekk champion dootuma ko nekkati parce que dama koy baax. lan koy bàyyi. voilà dama ci gisul benn njëriñ dama si gisul parce que làmb léegi dangay wax pour neexal nit ñi nit ñi noonu nit ñi jàppee la si noon waaw bari na ñoom booy say doo dafa dem. exactement bu ma fréquenté man xam ne man nit kese la. borom Xaadim Rasool bu wóor mooy wax ak yow man daray kiñaan daray iñaan daray bon nekkul ci man jegewul taxul sax si man. mbër naan booy sëy doo ko parce que man mosuma ko gis parce que man boo seetloo mbër yëpp su xarit lañ en général mbër yi nga mi ba ci adversaire yu may bëreel su may xarit te bon bu buñ dajee ñu ma lool peut-être xëy na bu buñ koy wax man déggu ma ko waxuñu ma ko wanuñu ma ko ah. voilà wanuñu ma ko c'est-à-dire lu ma lay wax nii bon boo duggee ci interview yenn mbër yi mbër yi nga xamante ne dañuy jaay seen làmb mun naa la ci siteel ay mbër sax ku si mel ne ku si mel ne Fils de Balla kenn gënu ko yaru ci àddina mais mais buy wax da commentaire yi da ngay gis sax gars yi di ko ci xas di ko ci saaga soq soq nga xam ne champion bu mag la si làmb daan fi ku nekk ay moromam yëpp mu daan leen nekk ndaanaanu kat xoolal ay interview boo duggee ci boo duggee ci commentaire yi da ngay da ngay day dem ba mu jàgg bu taxawee ne bàyyi naa bëre sax xam nga après yow dangay comprendre xam nga comprendre nga léegi nag loolu yow. seetaanoo mbay guy gi barki dem communiqué euh, interview bu mu def boo ko dee seetaan doon mbër sax sa yaram day daw comprendre nga Sénégal jàppuñu kenn kuy daan rek lañ jàpp bu dee mbër nga boo dee daan lañ jàpp. mais gis ci waajtaaj bi yëpp seex jëli naa ko mais daf la ñemee trop mu ne ma sama yaay def ma yónni yàkkamti ma te taxawaalu waruma te booy say bu bis baa dina wan ne ko xale laa dama bari doon. mais seex bu ma ragalee lu muy jëlee sama avance seex lan lay ragal si man seex ëppuma ko sutu ma ko dàqu ma ko bëre ëpp ma koy victoire ëpp ma ko ay mbokk Cheikh lu muy ragal si man. waaw mais lu muy ragal si man man tamit dama ko ñeme ñun ñaar ñu ñemante ku nekk moo tax promoteur bi mu de bi mu démarché combat bi rek combat bi taxaw kenn ragalul sa morom làmb ji kenn ragalul kenn li may wax rek kenn ragalul kenn kenn mënul kenn ku ku yàlla jàppalee fi nekk ak ku war a daan rek ku war daan daan ki war a daanu daanu loolu moo fi nekk kenn mënul kenn kenn ragalul kenn. ndax nit ku nekk li ngay xool si nit natt ko sa bopp ba pare bu la wóoree ne am na koo ragal rek xamal ne yow kon am na ku la ragal waaye bu la wóoree ne yow ragaloo kenn jàppal ne kenn ragalu la voilà. mën nañu xaar le 11 mars arbitre soufflé pour ko xeex ak Cheikh Super Diamane. non man moom damay dox uti ji ko man. man damay dox damay dox uti ko man moom du ma taxaw du ma taxaw te du ma xaar man du ma man du ma xaar mbër du ma taxaw tamit. waaw man damay damay ñëw sa kaw waaw. damay ñëw bëre si. loolu moo ma fa indi. supporter benn supporter bu dagg billet rek mille trois mille. yabu ma ko ba arbitre soufflé ma taxaw naan damay léewtoo jëmale suba. entraîné trois mois yu dëgër. benn jour benn tàkku tàkkusaan ñun li ñu may nga xam ne matul sax quinze minutes. danaa fa taxaw di. kon daal xeex bi moom mën nañu ko xalaat ci Boy Seydi. non néew ma la damay xeex néew ma la damay bëree li may def du ma ko wax. bu arbitre soufflé surprise lay doon man ay mag ñoo ma yor. ay mag ñoo ma yor làmb léegi dafa am nu ma ko beneen facette bu ma koy préparé bu bokkut ak ni ma doon préparé su may làmb sur le plan communication beeg l'essentiel lu wër wër mooy biir géew gi daal li ma war a def dinaa ko def. lan la est-ce que du staff. staff waaw staff aw ma woon man ak booy ñoo doon ànd rek di mataar dañuy jox ay combat ñuy dem di bëre ji rek waaw di di reeba tas barki sëñ Bàmba mosuñu doon mbër. te rab booy say deux xumbal la gëjoonoo ba léegi. waaw non bëriwaat naa fi defet am fi defet man ak Youssou Ndour waaw bëriwaat naa fi am defet man ak Youssou Ndour waaw. est-ce que du Boy Seye tamit gëj a bëri bi amul lenn lu lay pénaliser mooy chaque fois. li magan loolu wax nga ko junni yoon ak juróom-benn fukk. ba est-ce que arène nationale suuf seeg li gars yi doo wax yaa ngi doog a bëri arène nationale. bon kay suñ ma yokkaloon suuf sax moo ma gënal. yaa ngi doog a bëri arène nationale. bu jour ba dinañ dinañ yaakaar ne chaque dimanche mu bëri ko. barke sëñ Bamba suñ foofu su ma bëree pare dañ yaakaar ne Boy Seye mi xanaa chaque dimanche da doon bëre si fii lan mooy arène nationale arène nationale mooy géej mooy géej dem géej gi contact bëre mooy contact. xalaat nañ mu gaaw. combat bi ah moom maa ngi koy ne il faut ko mu gaaw parce que nag xam na cal na calculer ñun dañoo may dañoo wàññi temps bi cinq minutes cinq minutes la après trois minutes treize minutes kon donc lu ñu ciy def rek na gaaw waaw loolu maa ngi ko laa biire moom. Cheikh Badji la ci biir géew de. déggoo lu ma la wax seex Cheikh champion la Makan Makan yow jàmbaar nga. jàmbaar nga jàmbaar nga mais jàmbaar nga mais bon li ngay liggéey macha allah ñu ngi gis avancement si yow bu bari jikko journaliste bi léegi dugg na la mais bon man peut-être li nga li nga ma bëgg a wax loo. non say xadar ji say. voilà mais mais mais dama changé. léegi grand léegi grand frère laa aussi tamit. waaw léegi ay nante laay toogal. léegi yaroo ko waaye nanta laay toll waaye nanta laay toll bu njëkk ba fu fu bi la woon rek fu de village bi moo doon ñëw ci làmb ji di déranger di def ay objet mais instant bi nii mbër bu am gétt bi mooy ñëw mbër bu am staff bi mbër bu am encadrement bi mbër bu mature bi mbër bu dal bi bon mbër bu bëgg dara ci làmb nag bëgg bëgg am kër am oto am lépp lu teraanga bu nit di am si làmb rek mbër boobu moo ñëw quoi. te boobu bu waree ñëw nag bon da ngay changer lu bari quoi. Kër Massar comme ni ma koy waxee raf la ay champion maanaam daanaan tey say ñu ëmb la war laa yóbbu la 11 lan ngay wax waa Kër saar ak waaj bi ndax rafet na champion. mais Kër Massar ay Drogba mi ngi fi Drogba boo seetloo gëj na daanu si làmb. non gaa yi ñoo ko ñëwee ko bëre champion la. non dafay toll ci millions yi. champion la. ci millions yi laa wax. Drogba namul dara mbër boo xamante ne bii am na mbër yoo xam ne bu ñuy bëre sax moo leen di jëndal comprendre nag Balla gay di champion bu mag. Drogba mais garab ci kaw lay fekkante Boy ñaa ngi nii ku ko waxoon di nga egsi fii nii du ko gëm. mooy mu ngi fi. daan fi ay champion yu bari ñun fii am na ay mbër ah. eh, ñun xeebuñu luñ yor aussi donc tamit gox boo dem champion yi fa nekk tamit ay champion lañ bon mais aussi bon ñëpp ay champion lañ boo seetloo làmb ji léegi journée journée des espoirs yi sax ñooy feesal làmb ji. comprendre nga boo yi nga xamante ne bii xoolal ay ay Siteu bu Ngor ay ay ay Siteu bu Ngor ak ki mujjee bëreel Bébé Bis bi ñooñu xoolal liñ mobilisé di fi tëgg ñoo xam ne dañ leen di woowee champion te duñ indi loolu du dëgg léegi làmb noo toll rek mën nga nekk champion. lan la ñuy xaar le 11 mars booy ña kii booy sëy de mobiliser arène nationale. surprise nañ xaar rek si wàllu si wàllu mobilisation moom bon dañ siy woote rek bilaal maire Kër Massar bi nga xam ne bi muy doog a ñëw ñëpp dañ doon wax naan dafa tàng dafa def nii dafa def naa fekk liggéey moo ko taxoon jóg te boo seetloo koño secteur bi mu nekk bi muy doog a jël maire bi ak moment bi nga xam ne Bilal liggéey na si liggéey na bu baax a baax nekk maire Kër Massar di naan ko mbëri gisaguñ seen bopp si bépp benn maire bu mos a nekk Kër Massar fii nii donc ñoom ñu ngi koy xaar si moom Adama Sarr maire bi nga xamante ne bii man jox bi ma dëkkee moom moo fi nekk Adama Sarr aussi tamit làmb dafa nekk yéen bi mu méttee ñun dañoo taxaw jàppale leen ànd ak yéen donc tey ñun suñu waree bëre journée bu toll nii Kër Massar yëpp taxaw te ba léegi amul benn autorité bu bu ñu jëndal benn billet day xaw a doy waar ko donc Kër Massar ni mu bëree ay autorité mu bëree autorité Adama Sarr ñu ngi koy woo ci bis bés bi parce que jàmbaar la moom tamit liggéeykat la aussi ah ñu ngi koy woo ci ci ci combat bi bu baax di si woo na Dieynaba Ndiaye nga xamante ne bii moom suñu yaay la. bu ñu jàppalee war nañoo jàppale suñu jàppalewul war nañoo jàppale aussi du ñu wu ci di ko woo parce bu ñu jàppalewul sax suba bu ñu amaatee combat dañ koy woowaat parce que suñu yaay la comprendre nga mère Dieynaba Ndiaye ñu ngi koy woo si combat bi di si woo Grand Mor nekk bool bool créer entreprise ay boulangerie jël ay employés yi nga xamante ne bii Sénégal lañ dëkk ñu ko ñu fiy liggéeyee di jënd ay oto boo yi nga xam ne dañoo am permis mënuñu am sax oto bu ñu liggéey muy jënd ay oto di lañ ko jox nekk bool bool yàgg jàppale sax ay promoteurs yu tëgg làmb Père Mor comprendre nga ñu ngi koy woo di ko wax ne ay blog lañ bëgg mu jëndal ñu ko booy dem comprendre nga Fadli borom Tana boutique sama xarit suma lépp maa ngi koy woo di woo Binet borom Aliou Couture di di ko nuyu bu baax di nuyu seen waa kër yëpp di nuyu yaayam mère Ndiaye xam di naan combat bi Binet combat bi sa combat la yaa dégg di si woo ku si mel ne suma xarit Zeking di si woo Samba Diop suma xarit élément firi delloo yëpp maa ngi leen di woo waa Bambis bi. ay éléments lañ yoo xamante ne bii ñàkk jariñu moo la ñuy dundee leen di woowee waa bambis bi maa leen di woo nekk case bi waa kafe ga Baye Ndiaga su ma nee Baye Ndiaga rek tudd naa ñëpp comprendre nga élément firi delloo yi maa leen di woo bu baax père Adjuma Sow sama papa père Adjuma Sow suñu papa père Adjuma Sow papa yi mbër yi nekk école de lutte Boy Sey père Adjuma bi nga xamante ne bi lu baax rek la xam ak jubóole ay nit ànd bu rafet maa ngi woo si combat bi di ko di naan ko combat bi sa combat la di sant góor yàlla yi may ñaanal yëpp di leen wax ñu gën a ñaan comprendre nga di woo Toumani Diallo suma xarit grand papa magam di nuyu grand am di leen woo si combat bi di si woo bu baax grand manu euh, saw Diallo kii nu mu tuddati sax comment adresse Assane Diallo le promoteur immobilier liggéey lu rafet Kër Massar di jàppale ñëpp Assane Diallo. nga rek mën naa jë mën naa jënd billet yëpp. Assane Diallo musul jaay nit terrain wala dara nga dégg si lu la metti. waaw mën naa jënd billet yëpp. Assane Diallo ñun amuñu autorité bu ñu jàppale ñu ngi lay woo si combat bi di ne manu Assane jàll ñu ngi koy woo si combat bi bu baax baax a baax. te doomu Kër Massar la aussi. doomu Kër Massar la doomu lépp la ñu ngi koy woo si combat bi. waaw dinaan jërëjëf borom Touba waaw ñu ñu ñu jox ñëpp rendez-vous la 11 février incha allah. le 11 lan ngay maa lay ñaanal wér di la ñaanal gudd fan di la ñaanal nga ñëw bu la dara jot la 11 bu bëree maa ñaan yàlla may ma ndam waaw.